C'est ce gis nañu avons nga xamante ni mooy kuréel appel association des professionnels de presse en ligne Nous avons communiqué ñi ne il la libération immédiate de Pape Alé Niang Pape Alé lu du journalisme Pape Alé le lu mu du journalisme live la def appeler à l'insurrection Pape Alé Niang li qui ni ko il a diffusé un document non rendu public par l'État du Sénégal muy faute du délit y une presse bi ngeen koy il euh, yow mi jiite appel Ibrahim Ali Safay, tu es mon grand frère je te respecte et je te voue beaucoup de respect nous respecter au Sénégal respecte la presse sénégalaise Ibrahim Ali Safay, les Pape Alé def am nga site presse Afrique ñeme pas def Ibrahima Ali Faye le Pape publié un document non rendu public Ibrahima sa Faye am nga sa site am nga ay documents yu gën a garaaw yooyu te rendre loo ko public Serigne Diagne bu Dakar Actu am na documents yu gën a garaaw yu Pape Alé Niang te rendre ko public Salam Fall bu Seneweb am na des document plus graves te rendre ko public Dame Dieng bu leeral am na ay documents yu gën a garaaw te rendre ko public Bamba Touré am na élément yu gën a garaaw te ko public man Tange Tandian am naa documents yu gën a garaaw te rendre ma ko public Pap Pape di appel à l'insurrection Pape Alé ëppul la caméra Dakar, Dakaractu caméra ëppul la caméra amul ben journaliste wala ben élément ou site yooyu muy Dakaractu di l'éral wala Seneweb ku yëkkati def lolu. Beaucoup de liggéeyu journalisme kon doo taxaw nga naan koy libérer immédiatement doo juge il a fauté la loi n'a pas appliqué ce qu'il lui faut une faute nak bo xamanteni première fois def nga ko ñu xéxal la may la liberté provisoire yow ya waroon pingé sey cër xam la yoon may Pape Alé a débordé il a sorti du cadre de la presse pour dugg ci cadre politique lañu bàyyi politique yi régler ko ñun ñu gérer suñu presse je suis pas d'accord avec ce communiqué de Ibrahim Ali Faye ñaata journaliste lañ fi jàpp toroxal leen appel deful communiqué deful nangam sangam vous l'avez pas fait avec Pape Ndiaye wol Walfadjri vous ne l'avez pas fait avec pas mal de journalistes au Sénégal. Vous ne l'avez pas fait quand il y avait un problème entre euh, euh, les deux journalistes de la CNTV. T'as un qui est malade. Tête de Dougout nous avons ay fonds am ay aide ñu war ko ci appel def communiquer. Quand tey nous ñu nous Pape par rapport à sa une liberté immédiate liberté immédiate le ministre de la communication Moussa Bokartiam, nous te lançons un message yow y géré presse bi bu la kenn bu la kenn association dañ koy ci ils ne sont pas plus journalistes que nous

Quand Pape Alé Niang su il du taxaw encouragé ñoo dañuy foté ba su la presse en ligne c'est pas comme ça c'est pas comme ça Ibrahim Ali Safay. nous respectons la presse vous n'êtes pas les pères de journalistes Nous avons ci corps de métier Nous respectons les te joxante cër ñun ñëpp Pape Alé a fauté il a fait des fautes graves il a un problème avec la justice il est rentré dans le champ politique avons bàyyi champ politique avec les problèmes Pape Alé Vous voulez que nous ayons ci problème presse Papa Aléna, Niang kenn fait ci rédaction kenn fait fait ci journal télévisé kenn fait fait ci plateau il a pris ses propres initiatives de faire un live en direct au moment où Ousmane Sonko a été arrêté il a ngeen kàddu yu de doon wax c'est des cadres qui ont pour insister les jeunes à sortir à révolter pour qu'on n'arrête pas Ousmane Sonko Pape Aléna, a am parti pris Il a fait un def politique il na fait un faral ku ko neex mais su ranger politique. Ibrahim Ali Safai, ce communiqué-là, on le déchire. Le ministre de la Communication, il faut déchirer euh, le communiqué d'Ibrahim Ali Safay, défendre appel. Déjà, site internet, il y a deux associations, il y a Appel, il y a Ampers. Nous internet. légal ou légal. Donc, quand vous parlez sur un communiqué, il faut faire que tout le monde soit décider. Vous n'êtes ni le président de la République, ni le père de la nation de la presse sénégalaise. Appel de l'OLU. Appel de l'OLU. On se respecte tek affaire yi ci yoon teg ko ci dëgg su ngeen bëggee assainir presse da ngeen koy teg ci dëgg mais mun leen gis ku nekkul ci dëgg ngeen bëgg ko défendre suba keneen ku nekkul ci dëgg ngeen da ngeen bëgg assainir la presse non non non on ne peut pas vouloir le pour et le contre nañu dellu soit suñuy xel Ibrahima ali safay on t'a pas nommé ni voté à l'unanimité que tu es le président de tous les presses en ligne au Sénégal amul ku la ko votel quelques membres ñoo dajaloo defal la ko kon donc presse moomu loo ko moomu ma ko keneen moomu ko donc soo ciy wax dafa am loo ciy wax loo xamante ni dafa yoonu maanaa tegu ci yoon ñi koy dégg trop c'est trop ay kabok def ngeen fi ay manifestation ay nangam sangam ak ay rassemblement ak ci lo xamanteni ni Pape Alé Niang ci deug il a publié un document non rendu public par l'État et c'est une faute grave vous le savez on ne défend pas quelqu'un qui a fauté on ne défend pas quelqu'un qui a fauté on peut le soutenir mais on ne le défend pas on ne lui donne pas la vérité kenn du ko jox dëgg moom mi ko def moo la gën a xam ne nekkul ci dëgg mais popularité Ousmane Sonko ak ñu topp ci gannaaw Ousmane Sonko moo tax mu def ko yow Ibrahima Lissa Faye sañoo ko def Dakar Actu sañu ko def Sénégal sañu ko def Leeral sañu ko def Ténégo sañu ko def Sunugal 24 sañu ko def VIP People sañu ko def Dakar Buzz sañu ko def tey ngeen bëgg a taxaw non il faut qu'on se dise la vérité Pape Alé n'est pas plus journaliste que tous les journalistes qui sont au Sénégal xam-xam la jàng la ak diplôme am na ñu ko ci ëpp expérience rëy làmmiñ nag ak foo waxee ñu dégg la ça ne veut pas dire que tu es le meilleur non je suis pas d'accord on le dise une bonne fois pour toutes le Sénégal nous appartient ñu nangu benn association di dox su suñu kaw di mbubboo presse bi foog ni ñoom ñooy président le président de la République Macky Sall nous lançons un alerte trop c'est trop dañuy jàpp ni que presse mooy quatrième pouvoir dañu mën a xoqatal état ak nangam sangam non loolu daf fi jeex. On est là pour informer juste et vrai au peuple. On n'est pas des politiciens déguisés. tu un politicien déguisé as un corps de métier de défense politique am nga sañ la mais waxtaan de ko wax te